liggéey la ñu bëgg liggéey la ñu bëgg liggéey liggéey liggéey travail travail liggéey liggéey liggéey ah. de Moustapha Pouy élève sortant INEFJA douzième promotion maa ngi nekkoon section standardiste en télécommunication depuis comme ni ko Baye Fall waxee depuis 1982 ñi fi génn fii yëpp am na ñoo xam ne ñoom ñooñu ancien ci promotion fii man contacté naa leen pour jéem leen woo fi mais ñoo ngi dëkk ñii ba ay Joal ay Kaolack ay Bambey ay Diourbel fu ne woo naa leen man man yor naa seen numéro ñoom ñooñu ancien pour ñoom ñu ñëwoon fii bit bi fii liñ te li li taxoon ñun ñu tenir conférence point de presse bi Baye Fall sitting la bëggoon def ma ne ko sitting day diis lii ak lii man ne ko léegi nañ def point de presse point de presse moo gën a yomb te moo gën a oyof ci ñun. moo tax ñu waraloon point de presse bi tey li ko waral mooy lan ñun liggéey lañu bëgg moo tax ñu ñu woo état pour moom mu gestu ñu mu xam ne am na ay nit ñu génne INEFJA te moom moo fi teg INEFJA INEFJA ñii dañuy jàng ñii di def formation ci formation professionnelle ñaari ñetti section bu fa nekk. ñi defal wàllu bale ñi defal serpillère ñi def télécommunication mu demaat amat beneen branche boo xam ne branche boobu moo ngi dem ci wàllu éducation de CI jusqu'en terminale ba ay étudiants moo fi am fii loolu yëpp ñun ñoo ñoo ngi fi mais am na ay jafe-jafe yu ñu fay dund jafe-jafe yi mooy lan même ci wàllum éducation beeg wàllum formation bi mais gëm naa ne wàllum formation bi bosam li fi gën a metti mooy boo xoolee de ba jonn yàlla tey 2016 bi ñu nekk ki fi génn di fa liggéey bëriwuñu te boo liggéey it defar sa bale ak sa boros du am ñetti at doo ko fa am ak sa serpillère doo ko fa am télécommunication ah man day du ma ne gis naa ki fay def télé ku ku génnee télécommunication ba moo ngi liggéey standardiste déedéet gisaguma ko de ñun ñoo leen di woo pour ñoom ñu gestuñu ñu xam ne ñun ay doomu Sénégal lañ ñun ñoo leen fiy teg ñun ñi fi waa man mii wax ak yéen nii ñun presque pratiquement su ma xoolee ñuy def formation wàññi naa ñoo xam ne mën nañ cinq yoo xam ne ñoo ngi seen carte électeur ak seen carte d'identité nationale te am na ñeneen ñoo xam ne am na seen carte d'identité nationale amuñu carte électeur te dañuy voté ñun ñoo doon voté di leen fi teg kon bu ñu leen fi tegee ñoom nañu gestu ñoom ñu keraloo ñu GIE GIE bi ñun ñu sàmba ko tuddee ko la canne blanche GIE bi bañ ko créé lan moo doon suñu problème dañu cotiser woon fal suñu bureau ñu dem ñu laaj ñu ay dossier membre bureau ma indi lépp ba ñu indee loolu toog ak dem ba conseil départemental li lijjanti yooyu yëpp yóbbu bañ ko fa yóbboo déposé ñu demaat lijjantiwaat yeneen dem defaat yeneen démarche pour chambre commerce pour ñu wax ñu ni ñu def bu ñu am récépissé yooyu yëpp ñoo ngi ci jusqu'à présent lu waral lool ba mënu ñuy jot suñu yooyu yëpp mooy lan amuñu fond fond bi lijjante xaalis boobu pour ñu am récépissé ak yooyu loolu moo tax jusqu'à présent ñun ñoo ngi xeex loolu pour ñu am récépissé boobu pour ñu reconnaître parce que juddu te amoo kay di juddu xamuñu la kon GIE bi dafa juddu ni rek waaye kenn reconnaître ko parce que gouverneur bi fi nekkoon moo ñu ko waxoon mooy ba ñu def grève de la faim daaw problème biis la woon ak yooyu yëpp ñun ñuy xeex loolu ba ñu defee loolu moom mu ne ñu ah léegi jeex na mel ni seen rongoñ fer na ki fi génne formation fii laa leen di dugal fii laa leen di dugal ñiy def lii naa leen jàppale ci lii yàlla def ca diggante ba affectation am ñu affecté ko Dakar keneen ñëw affecté wu fii kooku moo war a continuer dossier mais defuñu ko ñun ñoo ngi leen di ñaan ñun ñoo leen di woo ñoom état ñoom ñu ñëw ñu gestu ñoom ñu xam ne ay doomu Sénégal ñoom ñooy jooy ñoom ñoo leen fi teg ñoom ñoo fi nekk pour ñun ñoom nañ ñëw ñoom ñu gestu ñu neexut nga nekk ci mbedd bi dafa tàllal loxo man day man Moustapha duma ko def man ma toog kër ga bañ a am dara moo ma gënal man may dem di yalwaan su ma ko naree def wallahi azim man ma torox ba faw bugguma ko te duma ko def parce que loolu man doomu gor boo nekkee doomu gor rek ñaq jariñu la ñu wax soo ñaqee da ngaa war a jariñu kon ñun def nañ suñu formation ba pare yàlla dafa war a def ñun ñu am fu ñuy làqatu loolu man ci côté boobu la ma ciy gën a yokkaat mooy lan mooy ñi ñu encadré formation bi ak ñi ñu encadre ba école ba ba yàlla def ñu def suñu formation ba ñu man lan bravo gàcce ngalaama ak ñoom parce que li waroon ci ñoom def nañ ko kon li ci des ci ñan la desee état kon moom état na def rôle mu mat sëkk loolu lañ leen di ñaan ñun ñoo leen di woo ñu wan leen ne ñun ay doomu sénégalais ñun ay vrai sénégalais ay vrai patriote boo demee école ñu wan la ne lii ku gisul mooy def lii da nga naan non non mënul nekk bi may ñëw fii barki dëmb oto bi ma dugal lan la ma wax su ma gisee seen bale rek noonu damay ko man ba ma ko waaye sama jaar-jaar mu ne ma non non li nga wax c'est pas ma ne ko c'est possible ma moom ñu waxtaan ma ne ko bés boo ñëwee naa la wan bale yeeg serpillère yi ma wan leen lii ku ko gisul mu ma yéen doo leen gaañu ma ne ko non non duñu gaañu parce que xel la ñuy utiliser malgré yàlla xañ nañu lii mais xañ ñu xañuñu lee loolu jëkkoon nañ def conférence jëkkoon nañ def grève de la faim gëstu gars yi bàyyi wax ñu bàyyi comme demee nii ñun buñ demee ba gis ñu xam daañ taxaw ci mbedd mi Sénégal yëpp dégguñu ndax ñun liggéey moo ñu ñor duñu yàq nag ñu def dara mais daañu wax pour état dégguñu te gëm nañ lii ñuy wax Macky Sall bu ko déggee da ci jàpp ndax Sénégal yi tey bu xalaatoon bu doom lii bu ko daloon wala am koo dal ci njabootam dana ko jàppale te ñun ay doom lañ ay jarbaatam lépp lañ te li ñaan